te na ci yaakaar bu baax a baax équipe baa ngi noonu nag presque ñëpp ñëw nañ gendarmerie yi commencé na dégg nga euh, euh, coach bi commencé teg stratégie nu mu war a jouer ñu war a préparer max bu bu laa yàgg ñu ngi Niger mu nekk max bu max am solo la dañ ko war a dóor ndax match la boo xam ne ci nga war a defar sujet ci nga war a xam dëgg dëgg nu ñu aborder si max yi tam nañu yaakaar bu baax Sénégal mooy door mais man tam ñu door rek ñu ñàkk door rek max la boo xam ne bu ci jógee war ñoo xam lu ñu yokk ak lu ñu wàññi ak ñan ak ñan ñoo départ il faut ñam coupe d'Afrique bi coupe d'Afrique ñu am ci trois ñu départ ñu ñi départ man même est-ce que dañuy changé mais sept personnes wala huit yoo xam ne toujours ñoom dañu ne ci terrain man nga ñaari ñoo dugal des fois distance bi ba mën a kàllaama